asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat fii ci Touba Mbacké di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bassirou xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ak wér <clears throat> noonu it lañ koy ñaanalee mboolem kilifa yi diine yëpp mbokk yi ñu ngi ci uh, wàccaayu màggal Touba atum 1442 uh, wala doon 18 safar 1442 ginnaaw gàddaayu Yonent bi salallaahu alayhi wa salaam war a doon le 6 octobre 2020 di bés bi nga xam ne Serigne Touba moo ne woon fu mu delluseetee nañ ko ci sant la yàlla li dale ci ginaar ba ci gileem ñu nekk ci wàccaay wi euh, fas yéene amal ay jotaayu waxtaan ak kilifa yi nga xam ne dañoo nekk ci yoon wi ak jëwriñ yi nga xam ne dañuy liggéey liggéey bu am solo ci yoon wi ngir indi ay leeral lu jëm ci màggal gi ak leen li ci aajow ñu am nag di dalal ci plateau bi tey Serigne Moustapha Diakhaté xaadimul xaadim xam naa ne mbokki taalibe yi miin nañ ko bu baax a baax ci taxawaayam ak liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def mu jëmee ci yoon wi sëriñ bi ñu ngi lay euh, nuyu di la di la euh, dalal jàmm ci plateau bi aouzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalaamu ala nabil huda wa rahma bismillahi rahmaani rahim barke cheikhul xadim jërëjëf sëriñ Touba aski sëriñ Touba borom Touba moromantiwul euh, sëriñ Fallou ñi ngi lay nuyu di am mbégte lool di jël nuyoo bi di ko teg sa loxo mbégte bi nag li ci jiitu mooy ku mel ni yow ma toog ak yow ci sa biir ak ci sa teggin ci ndekk gi nekk ci yoon bokk ci loolu lu ñuy miin saa su nekk waaye mbégte moomu jàpp na ma ci toog gi ma toog ak yow ndax bu ma sañoon ku may laaj ku ne wala muy sàkk ci man lu mel nii day la la nekk ci moom day mat ci moom moo tax am nañ ci mbégte lool ci dajegeeg yow nuyoo bi nag ñu ngi koy jël di ko teg ci loxol sa loxo waaye li jiitu mooy damay baloo ak ñëpp di baal ñëpp àq di ñaanal ñëpp di sàkku ñëpp ñaan di sant yàlla ci boole mi nga xam lu ko neex def yàlla na bokk ci li koy neex yàggal fi ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba lépp mu ko nu ànd koog moom te daje ci ngërëmul Serigne bi ngi lay di la gërëm ak seen yi ngeen àndal muy ñi nga xam ñoo fi di caméraman yeeg techniciens yi ñëpp fii ci kër ñu ngi leen di jox ab nuyoo ak kilifa yi ngeen àndal yëpp di liggéey jërë ngeen jëf. macha allah euh, ci nuyoo bu am solo boobu ak kàddu yu seere yi xam naa ne daañu ci ñëwaat incha allah euh, sëñ bi mu mel nii ñu ngi waajal 18 safar mu nekk événement boo xam ne du ma ne ci Sénégal sax événement bu gën a mag la ci àddina bi ndax gisaguñu événement boo xam ne mën na rassembler ci euh, benn fan wala ñaari fan ay lu toll ci 5 millions de personne Màkka la ñuy méngale te Màkka dañ naan euh, dañ koy limité 3 millions wala lu ci lu ko topp donc événement bu ñu demee muy dugal tamit ci économie bu Sénégal. deux cent cinquante milliards la ñuy wax muy loo xam ne day bàyyee ko ci maa ngi dugg ci économie Sénégal ñu tolloon ci jamonoy mbas mi ñu gis ne euh, réew yi ñu ngi fexee def ay stratégie ngir relancer seen économie est-ce que jàppoo ne euh, événement bu màggal bu Touba war na nekk premier événement boo xam ne day booster waat économie bu Sénégal ginnaaw bu mu nërmeeloo. Euh, jërëjëf Serigne Fallou laaj nga laaj bu am solo ñu tontu ko nag ci kii murit kirib julit kirib sénégalais tontu li ñëpp a ko moom fas yéene ko teg ci fu wér mooy euh, suqali gu muy suqali koom-koom Sénégal ci jamono yi nga xam ne réew yëpp ku ci nekk yaa ngi wut ay pexe fi ñu toll say kàngam lëlu nañu ngir weer yi nu weesu li la nërmeeloon nga fexe ba jógaat kon kan moo nu yëkkati Serigne Touba moo nu yëkkati c'est une particularité spéciale Sénégal rek moo ko am benn réew ci àdduna boo xam ne ginnaaw lii. nekkul di leb wala muy dugg ci pexe ngir yëkkatiwaat koom-koomam amul lu mel nii loolu nag day dellu ci sëriñ bi dafa waat boppam dafa mel ni mbas mi liñ koy coow ak liñ ciy wax lépp daf cee da cee feeñalewaat sëriñ bi ni ko ci feeñale mooy état bi ñu ngi doon wax ay nit di wax naan mbas mi nangam ko ne ngay du ay waxkat yëpp ay yan caam xaw ma ma nan ko wax waaye li ma la bëgg mooy tey dafa am loo xam boo ci nekkee doo faale kuy wax mooy ay réalité réalité bukkul ak toog ci micro ak toog ci télévision di war war rek di wax wax ak jëf lii jëf la jëf ji mooy lan état bi ci boppam boo ko noonu tey da ngay fomm màggal gi dina ñëw ci sëñ Muntaxa sukk ndànk raam suus ñaan ko ñu màggal moo la ko gënoon a yàkkam fop dafa am loo xam ni c'est c'est la politique sur le plan mondial il faut ñu ñu ñu wanewu wala ni bëgguñu ko nañ nangam nangam am loolu yëpp waaye état moom boo ko noonu damay fomm màggal gi suba danañ raam dig ñu sëñ Muntaxa guddi ñaan ko ñu def ko ndax dina benn ñun ñoo la gën a gëm sëñ Tuubaa ñoo la gën a xam xam na ni lii ci kàttanu yàlla dina dem ba jàll ànd ak mbas mi dem ba faw waaye lenn lu ci jóge ci mbas du am moom kay dafay jëlee mbas mi waaye du fi dolli mbas mi kon benn beneen bi topp mooy 250 milliards yooyu nga wax dama lay laaj état wu Sénégal fan la mënoon a amee ginnaaw lii ginnaaw xew-xew bii nga xam ne mi ngi soog jeex daanaka muy mbas mi léegi fan la mënoon a amee 250 milliards yoo xam ni da da du mu lebi ko te leb gayit da cay am ay charte yu ci ndax lu mu leb lu ne day am luñ ca teg waaw pourcentage waaw intérêt boobu ñu tudd lii nag mooy lan mooy man gëm naa ni sax ren dana ëpp deux cent cinquante milliards ndax li ma gisagun ci Touba moom fa la fa jëm si li ma li ma gisagun ci Touba matagul magal gis ñetti fan te wér na ma ne juróom-benn fan yi man li ma gis ñu di ko wàcce ci xeeti marchandise loolu bu buñ ko boolee ak li nga xam ne concerné wul Touba ndax essence bi ñuy jël ci àll beeg yeneen ak yoon kooku moom doo ko gis ci station yi lañ koy jëlee sur le plan communicationnel lépp day ëpp kon deux cent cinquante milliards loolu nag li mooy nun dañoo war a dellu ci delloo njukkal Serigne Touba nu ñu delloo njukkal Serigne Touba mooy reconnaître li Serigne Touba am te moom ko te yàlla jox ko ko ba noppi mu ñàkk ko nii waaw nabatukum maan ala kadibada ala kadibada min qabli an araari dan mu abada maa ngi leen di loo xel yi yéen ñëpp ni daj naa man Serigne Touba lu mburu dajul ci taal bi ma raar am lii kon nag nun nan am ko loolu honnêteté moo ko man nag ku honnête mooy man loolu waaw maanaam nit ku ko nanguwul wala àndoo ci manque d'honnêteté lañ koy tuddee sérieux kon li ñu war a wax mooy tey ñëpp dañoo war ni jërëjëf Sëriñ Tuubaa eggaguñ ci sant yàlla gi de sant yàlla gi gannaaw suba la dañ koy def saa su nekk mais ci bis bi ko sëñ bi deflu kon nag léegi noonu balaa boobu sax war nañoo tàmbali sant Sëriñ Tuubaa muy sur le plan temporel et bu ma la ko bëggee wax rek cib tënk ci wet waaj laaj bi nga laajoon Sëriñ Muntaxa a a fait mieux mooy ki jëkk yëkkati xaalis jox ko État fi indi mooy ki njëkk a fexe ba ñëpp rek respecter les gestes barrières sëñ Mountakha Laye il a fait. Ah. mu fa laa jëm si fa laa jëm damaa dépassé sur le plan national continental sur le plan mondial laa wax demal ba Makka tëj nañ Kaaba ga tëj ma dina tëj jàkkee ci des parce que waroon Kaaba geeg ma dina rek lañ tëj mais riyaat ak yëpp man fa laa doon jànge wax nga ko léegi ak gi du ressembler 4 millions wala bu 4 millions fa Touba nag day ressembler au moins 5 millions ren jii nag moom dinaa loo xam ni sama diggee naa loo xam dem naa ba ki ma àndal ma ne ko ndax est-ce que amul ay jinne yu màggal si léegi parce ndax gis naa démb loo xam ne ñu wàcc Touba man musuma gis lu mel noonu te màggal gis ñeenti fan kon li ma bëgg wax rek mooy sur le plan économique état du Sénégal ak képp ku di sénégalais war nañoo delloo njukkal Serigne Touba ndax buñ ci jógee état bi am na ay gàllankoor yoo xam ni li muy tibb ci màggal gi ci wàllu koom-koom li mu ciy gagné opérateur privé économique ñëpp mboolem koy yëngu ñëpp entreprise yëpp war nañoo delloo njukkal Serigne Touba loolu moom ñëpp la war loolu rek laa bëggoon wax ci wàllu wàllu na fi entreprise yoo xamante ni mën nañu at mi euh, li ñuy jaay ci période màggal du premier au 18 safar wala du premier ba safar wala 30 safar sax parce que euh, euh, bu 18 safar weesoo gan ñu bëri dañuy des si dëkk bi te murid dañuy wéy di bernde dañuy jënd am na yoo xam ne dañ koy dañuy wéy ba dugg ci weeru gàmmu gi kon nga xam ne entreprise yooyu mois de mois weeru safar bi lañ ciy jaay duñ ko jaay sax ci at mi loolu nekk na loo xamante ne lenn lenn la ci yéen entreprise yu bëri waroon nañ màggal ci seen chiffre d'affaires yi ñuy am ci at mi ñu si génn loo xam ne dañ koy dugalaat ci màggal gi parce que liñ ci am dafay bëri loolu mooy yoon loolu mooy yoon da gis ni Cheikh Bass Abdou Khadir ngi fi da gis kenn ku ne ñëw présenté wu delloo njukkal sant muy entreprise yeeg société yeeg ñëpp kenn ku ne di nga ñëw mais di ñëw mais indaale as addiya am na ñoo xam ne dañuy indaale addiya mais am na ñoo xam ne as addiya la ñuy indaale te wér leen ni li ñuy gagné ci biir loolu nag ñoom am nañ ci droit ça dépend sa chiffre chiffre mu wér benn weer mën nga ci def chiffre d'affaires bu 200 millions te du mën toog lu mat doo ko am chiffre d'affaires kon war ngaa génne lu mu bon bon 20 millions ko joxe te lii may wax nii société yi ngeen di gis yëpp kenn ku ci nekk sa chiffre d'affaires ci màggal gi màggal gi yemul ci màggal gi ba ba gàmmu gi parce que bul fàtte ni Serigne li ko gàmmu jaroon ak li mu ci doon daj ak ni mu ko santaane woon murid yi noonu lañ loolu moo kon kon ñi nga xam ne ñoo ne ci réew mi war nañoo delloo man daal baat bi may wax mooy nan delloo njukkal sëñ Tuubaa nañ koy delloo njukkal nañ reconnaître sëñ Tuubaa ni kii moom li ko yàlla defal wér nañ defal ko kenn loolu mooy li am kon loolu rek laaj ci bëggoon wax ci wàllu googu wane ni entreprise yi muy entreprise nationale muy entreprise privée war nañoo dellu seeg joxaat magal gi geneen gëdd ba noppi joxaat respect bi am Tuubaa geneen gëdd loolu daal bëggoon naa ko wax mhm. jërëjëf sëñ Moustapha xam naa beneen laaj bi rek mu nekk dernier laaj bi mooy gis nañ ne taalibe yi ñu ngi ñëw te am na benn comportement boo xam ne moom lañ wane ci dëkk bi ndax Serigne Touba ba mu sañcee dëkk bi am na lu mu fi bëggoon mu nekk dëkk boo xam ne dañ fiy jaamoo yàlla dëkk boo xam ne dañ fiy euh, roye sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax taalibe bi war naa ne damay màggali rek ba mu ñëwee nu ma neex laay mel nu ma neex laay sol nu ma neex laay comporté woo. laaj nga laaj bi nga xam mooy laaj bi ëpp solo ci laaj yi mooy li fi ñu jëm lan la fi ñu jëm ci lan lañ jëm benn muy man di yow ku mën a doon bu kenn ni ndox mi ku ne xam na ni problème am na ren tàngoor wi xam nañ ni am na dëkk bi xat na waaye loolu yëpp nag man li may yéene sama bopp laa yéene murid yi bu kenn jàmbat ndax mënoon ni damay sant yàlla ba pare di jàmbat ci wet gi kon yow delloo njug sëñ Tuubaa li mu def loo defoo ko mbir mi bu nu bu nu bu nu fàttalikoo 1895 ba muy jógee Mbàkke Bari sëñ Fallou Cheikh Modou Mamadou Moussa toog mu won leen ginnaaw nit sama njaboot ak samay kër yëpp ràpp na tàggoonam ak ko fàttaliku di nga toog juróomi fan yoo xam ne doo jàmbat ndox doo jàmbat dara juróomi fan la yàggul xam nañ ni jaaduwul nag loolu nag ci nun la su war a réorganiser leen organiser ko organiser wul ni ñu ko ba tax gàllankoor yi di am waaye li ma la bëgg a xam rek mooy képp kuy ñëw war ngaa xam ne bu fekkee bëgg nga fay jëlee dara bu ëllëgee ak koo mën a doon muy journaliste muy président muy ministre muy sëriñ ku mu mën a doon fexeel ba yow boo fi ñëwee bu ëllëgee nga am li nga xam ne moom nga doon wut si mooy lan respecté li nga jëf dem naa ba ci ñi nga xam ñooy jël place yi ñi fi ñu teg place yi sax am na ci yoo xam dañ kon kuy ñëw màggal si na xam ne ma àndul njàmbat sant la sëriñ Tuubaa kuy sant nag munoo jàmbat munoo ni sant yàlla ba pare di jàmbat mënut a nekk boo santee yàlla ba noppi jàmbat li nga santoon ñàkk nga ko kon nan góorgóorlu rek muñ ko tàngoor week lu mu mën a doon nan ànd ak jom ak suñu ngor fàttaliku ni sëriñ Tuubaa ñun cinq jours la moom sept ans la sept gu toll ni lu métti métti rek mun nu def ko plaisir mu doon coorob bànneex te bañ a doon coorob jàmbur li ci des nag mooy am na ñoo xam ne folklore moo leen fi indi waaye ku fi ñëw ak folklore itam boo delloo la ngay dajale yaa naa ko léegi xam nga ko sax ci sa mooy Saxum Touba point net Saxum ngi ci internet bi loolu yëpp ñu ko ciy def di ko ci waxaale ngir nit ñi mën cee xam li xam moom la ñu war a màggale loolu ci xamoon ndax waxtu yi xat na ci man jërëjëf sëñ Moustapha xam naa ne dañ lay kii rek ndax yaa ngi ci liggéey bi te yaa ngi ci yeneen yitte yoo xam dafa jëm ci màggal gi ak kilifa yi euh, yan kàddu ngay tëjee waxtaan wi rek mooy képp ku di murit boo nekkee Dakar wala Saint-Louis woo foo ma nekk ba léegi weesagul ko mën a jaare boo gisee ko loo ko mën a dimbali nga fexe ba mu ndax ndox moom dana am jafe-jafe loolu amul benn werante waaye nag ku ci mën dara weesagul ba tey ba suba ba gannaaw suba li ngay wax sànq ci entreprise bi ñuy wax entreprise bi su nekk la mu waral tubaab mu koy def gis nañ fi benn entreprise nationale du ma def publicité bi mën naa ko wax sax ndax jëf ji mi ndax rafet na muy Sonatel euh, fan yee dañuy wax ne ndox mi mën naa am mu manqué yooyu mu yëkkati cinquante bâche eau yu bees tàq

loolu boo ko xaymaa ak li ñu joxe daanaka tuuti lay doon waaye nag jëf ju baaxee noonu ku ko def war nañ laa sant wala gërëm jërëjëf. jërëjëf sëñ Moustapha ñu ngi lay santaat baax a baax baax di la gërëm mu lancé appel nag bu am solo boo xam ne jëm na ci dëkk bi ndax war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndox mi te loolu kilifa gu ne mën na ci jàpp entreprise mu nekk mën na ci jàpp masque yi ñu fi doon indi macha allah masque yi takku na lool waaye nag màggal gi du masque kese dëgg la li nga xam ne sëriñ bi noonu la ko waxee nañ ko respecté sàmmonte ko am na fi ñu ay soppee Saxum Touba dem naa ba egg di leen woo am na ñoo xam dañ camion fu mu a nekk weesagul nga joxe sab camion jox ko chauffeur fexe bañ jokkoo ak moom su ko defee ndox mi mën a tas ci dëkk bi loolu ndimbal la te kenn bu ëllëgee dina la jural loo xam doo ko xalaat sax kon loolu képp ku ci a jàpp daal na ci jàpp ci a baax di la gërëm di xam nañ ko baax a baax a baax a baax euh, di la ñaanalaat euh, yàlla may la gudd fan wéral la te it euh, bàyyi la fi ba ci kanam barki Seexul Xadim ndax bëgg nañ lool ci taxawaay bi ak ni nga xam ne noon ngay défendre yoon bi nga xam ne képp ku jóg lu mu wax ci yoon bi da lay jaral lu ne nga nga défendre ko te Serigne Touba rek tax ñu ngi lay ciy santal baax a baax di la gërëm kon mbokk téléspectateurs yi ci kanam incha allah daañu dalal beneen kilifa fii nii ci plateau yi nga xam ne ñu koy mu jëm ci màggal Touba